يونن ومولده به شرف وادي يونن ومولده به شرف ملائك الله لا زلتم من الكرم Wallahi. Huh? bi muy am na mu mel ni bi muy ñaan kaddu xaw naa sax gàntal ndax xamoon ni fii lay jëm daa am na lu nga xam ne xajul ci kenn ملائك الله لا زلتم من الكرماء حفت بجمعكم طوبى لمن حضروا ملائك الله لا زلتم من الكرماء حفت بجمعكم طوبى لمن حضروا moo mel ni mënuñu ci weesu loolu way juram yi fi teew yépp ak maamam yi fi teew yépp seen wax sori na ci nit ñi bari na ku defe ni sax waxinam rekk moo ma emporté waaye baytu Seydil Hadj Malick biñ doon way léegi ala ya rasul allahi kulli wa jumlati fa inni fi hada alzamani garibu أبعد حرارة الفؤاد لتنطفئ وقد زاد من ضيق الزمان لهيب xam nga ko day ni Maodo buy dem bay wax yonent bi ni ko wallu ma gaaw ndax tumu ranke na lool ni ko sama xol jamono bu ma yàgg foogee ni mu ngi giif rekk leneen taalaat ko Maodo dooy wax de waaw wax yonent bi ni ko bu yàlla araamalul woon xaru kon dinaa xaru waaw ma xam ni Maodo ak mayam Maodo ak cërëm Maodo li mu daj ndegam mooy dem banan bu yàlla araamalul woon xaru kon ma xaru moo tax ñun ñu wara xam ni defuñu dara te li mu doon dégg ci góor gi muy wax ni sëriñ Babacar daf ko daan wax moom Seyid Cheikh ñu ko boo fekkee woon sa dundu maam kon ku déggoog moom ngay doon ndax li nga dégg ci philosophie waaye tabaarakallaahu ñoom lool lañ leen di ñaanal moo di bu fi seen maam nekkulit yàlla may leen ñu déggoo ak moom مولنا ومولده بشرف وحدي ينن ومولده بشرف